kenn mënul forcer nit muy dem di vacciné wu waaye am na lu état man bu ñu seetee li ñu gën a bëgg mooy làmb ci ñu ni terewuñu làmb waaye bala nga fay dugg di nga vacciné wu di nga masque yu nga yor gel stade ba ñuy footballé surtout nawetaan yaa ngi ñëw ñu ni bala nga fay dugg di nga vacciné wu di nga euh, di nga masqué wu di nga yor sa gel bala ngay dugg restaurant def ko bala ngay dugg boîte de nuit def ko bala ngay hôtel def ko bala ngay dugg ci bus def ko. wala bala ngay inscrire voilà boo ko defee bu ñu ko defee rek nit ñi bu ñu amee soxla dana dem vacciné wu. jamono yooyu it kilifa yi ma ko doon waxal nangu nañu ni sax lu war a nekk la waaye xëy na li manqué woon loolu bala nga koy mën a def da ngay am vaccin yu doy ba nga xam ne fu nit taxaw mën a vacciné wu. donc loolu mooy li nga xam moo nekkoon gàllankoor bi mais dem nañu ba tey jàpp naa ni fokk ñu egg ci loolu li ci am solo nag. mooy kenn ku nekk xam ni affaire mbas mi du politique du syndicat du tarixa du diine lu mu doon mooy kenn ku nekk yaa war a jéem a aar sa bopp waaye nag jaaduwul yow nga aar sa bopp ba pare di loo nit ñi ne lii du lii du dara alors di fexe ba nit ñi naan woy vaccin yi baaxul vaccin am na risque nag mën a am te ña ko doon wax ñëpp tey ña nga dem di vacciné wu uh-huh. rafetlu taxawaayu kilifa diine yi tàmbalee ci église catholique